Diaz maa lay sant di la gërëm di la nemmeeku bu baax a baax a baax a baax. yow naka gisee combat démb bi Balla Gaye Gris Bordeaux. Euh, wax dëgg yàlla man Balla Gaye sama mbër wax dëgg yàlla. Balla Gaye li mu daan jógee ci combat euh, lamb ji dëmb dafa bàyyi boppam ndax entraîné wul à 100 pour bala Balla entraîné boo ko indi lay xeex bala day songu jàppal ak daan la mais dëmb Balla indiwul loolu liñ ko sant mooy lan jàppal booy bi daan muy xeexam moom xeexu mbedd boo ko indi la Gris Bordeaux moo ko mën. mais dañu gis benn instant Balla bi première euh, round bi laa ko mën tuddee mu mel ne ko xaw a sonn quoi taxawul na nga wutul avance. xam nga lan moo waral la physiquement taxawul techniquement taxaw na mais physiquement taxawul parce que Balla Gaye bu entraîné doole Balla Gaye bu la dee taxaw gëdd la benn boo ñëwee mu laal la nga Balla Gaye luñ ko xam arbitre bi sifflé na Balla Gaye songu nga ko moo ko songee boo ko songul Balla Gaye dina ñëw te boo ñëwee ci moom dala jàpp daan la di dem yoonam yaa ngi dëgg mais Balla Gaye bii pas Balla Gaye daa yóbbu boppam mag la. mel na mag buy bëree waaw mel na mag buy bëree. te naxante de ba jàpp naxante boobu nag foofu la ko Gris Bordeaux ëppalee. Gris Bordeaux ni mu ko ëppalee sens xeex bumu ko xeex dante bi mu ko indil looloo tax premier ku ku Balla Gaye met affaire bi métti ci Balla Gaye mais nu mu ko daanalee expérience la ko daanalee parce que expérience qui fait la différence on dit la vérité techniquement mu ngi fa expérience baa ngi fa mais physiquement nekku fa d'accord léegi mais Balla na ne dañoo a bëre ki nga xamante ne moom mooy Boy Niang. Ah. mais est-ce que li Boy Niang. man du ma la fende man bërekat laa xam naa mbapat xam naa. mais tamit Pikine Pikine ni teela la Pikine boo ni teewul doo dëkk Pikine. waaw il faut que nga nitee doog a nekk Pikine. léegi Boy Niang Balla Gaye. Boy Niang Balla Gaye bàyyee yoonam Boy Niang daan ko une minute trente secondes. une minute daan daanul ma la wax. Balla Gaye bu bàyyee yoonam une minute trente secondes la ko Boy Niang di daan. maanaam mu dem entraîner lu métti. pour mu daan entraîner bu métti comme ni mu daan entraîner moromam yi di daan une minute deux minutes. mais Gris Bordeaux Tapha Tine. Gris Bordeaux Tapha Tine. boo ko war naa taxaw boo boobu combat boobu ma bëgg naa ko. ndax la moo tax ma bëgg naa ñoom ñaar ay xeexkat lañu mais na que le relance la yor Tapha Tine. waa ñu lay ziar. ñu lay damay teraan làmb nag mais du jërëlu làmb démb ko ci ma kenn dama doon teraan rek. waaw làmb de ni ma gisee moo di ma la wax léegi rek làmb ji moom gars yi dañu fay ñoom ñaar dañu fay nekk daw dépasse rek dépasse rek la ñuy daw parce que nekkutul nekkutul ñoom bëggatuñ ci làmb ji. du ñuy xale doole. amatuñu physique. Balla xale Balla xale la ba léegi non du xale parce que dafa def ci yaram lu nekkul ci yaramu xale. Balla yaram dafa yàq yaram ba pare mënut ko defar bala bu physique at du tax mu nekk du tax mu am la mu amaan bu physique at du tax mu bokkaat ci làmb ji. mais yow pour yow Balla Gaye euh, fan nga jàppee ni dafa manqué endurance si ban moment nga jàpp ni kii manqué na. waa ñoom ñaar ñoom ñaar sax laa wax du ma ne du ma ne bàyyi Gris ñoom ñaar ñëpp seen premier contact ci laa xam ne ñoom ñaar boog ci laa xam ne ñoom ñaar ñëpp kenn amatul ci kii kenn amatul ci ko kenn amatul ci condition physique ñoom seen ñoom ñaar bu ñu njëkkee jàppante bu ñu njëkkee xeex ba jàppante rek leen bàyyi complètement loolu moo lay xamal na ñoom dana fay nekk ci làmb ji pour daw dépense mais nekkatuñu fi pour bëri am ci xaalis pare nañ ci làmb nan génn bàyyi booy ñu fu bàyyi booy ñu kon ne mais Gris Bordeaux ban erreur la def ba Balla daan ko ban erreur non Gris Bordeaux parce que bëree moom ñaar la moo fu il faut nga def faute bii mën a am def na erreur bala daan ko ji parce que moom li ko daan mooy leen dafa jël te tànk te moom xam nga moom de benn piem baaxul benn tànkam baaxul bi mu jëlee tànk bi mu appuyé boobu tànk moo tànk bon bi loolu moo gën a rey nag léegi bala def la tout pour daan ko ci mais ñoom ñaar daal moom nan bàyyi làmb daal bàyyi booy ñu dem parce que instant yi moom ay mbër moom ba bëgg a dégg dégg rek sa waay waaw moom nekkatul ay mbër de parce bala moom ma ñëpp sa laay waa gàcce gu gudd gàcce ga gën. mais mais Balla est-ce que li mu indi dem mën na moom li mu dem wax ma boo Boy man mi di wax ak yow sax sëwër clando bi donc bala mënu maa daan te boo li ma wedd boo ko waxee li ma la boo ko weddee tëgguñu combat ngoon. d'accord d'accord mais xaamoo xaamoo maa lay fay bi Ablaye Sène ah mu ji dem man maa ngi woon ci stade bi moom te te Balla Gaye laa doon supporter mais li ma gis démb moom li ma gis démb moom dalul xel moom démb moom li ma gis dalul xel. Balla laa doon supporter moom laa bëggoon mu daan mais li ma gis démb moom dalul xel parce que mbër da ngaa war a pare ci doole pare ci lépp daal. mais indi na mystique bu baree bare mais mystique dong gañewul mbër waaw loolu moo ko xañ làmb ji daa bàyyi xel bala Gaye parce que sóoraale na mu jàpp ko fenn après làmb ji jeex mais bu doon dafa gëm boppam jàpp gi ko Balla jàpp sax mënu koo daan. parce que Balla même bi muy songi dafa sukk sukk boobu bu doon giri mi ngay xelam dong au que mu déplacé daf kay mbaar te kon boobaa Balla Gaye dañuy lijjanti 3 appuis wala 4 appuis lay def mais duutu am fu mu jaar waaw waaw waaw waaw surtout loolu waaw loolu looloo fa desandi mais giri gëmut ne Balla ngi ci suufam il faut mu jéem a daw pour dindi jàpp bi looloo ko daan mais non non non daanul booy ñaar moom su ma ko doon conseil daal na duggaat ci suuf si wëri doole ju bari ànd ak Lac de Guiers mi ganaam mu coaché ko teg ko ci entraînement yu metti parce que li ma gis fee démb feesal stade ba pare te amoo doole ju feesal stade bi amul njariñ parce que ñun ñëpp moom lañ bëggoon mu daan ñu ñëpp parce que démb am na fu mu toll ci làmb moom bu daan woon làmb mën naa jaare foofu wàcc parce que fi mu toll la ñëpp supporté ko terrain bi fees stade bi fees del mu ñëw di bëréew lu xamante ne nii ñun sax bégguñu si noonu la deme ñu ñëwee si làmb ji si ñaari mbëri ni ñu dugg see bi nga gisee Balla Gaye tuus gis euh, Gris Bordeaux tuus indiwaat tuus saxal tuus bi mm. ñeneen ñi Gris Bordeaux dafa diis ak yooyu euh, bi muy tuus sax sentir nañu combat bi mënu si génn ak yooyu bi nga gisee euh, Gris Bordeaux tuus lan nga wax ci tuusam waaw gis naa gis gis naa tuus bi parce que tuus bi xam nga da ko dagg eggul comprendre nga est que ñoom ñaar ñëpp gis naa gis naa gis naa seen tuus xam nga ñoom ñaar ñëpp ñoo nekk ci làmb ji ñëw nañu comprendre soo xoolee premier combat Balla Gaye bi mu mujjee bëre moog bombardier xam nga dafa bëri woon désordre xam nga ku nekk ñëw ci cumukaay mais soo xoolee combat bi nga xamante ne tey xam nga ay mbokkam yedd nañ ko estafam yedd nañ ko indi na indi na làmb démb parce soo xoolee dañ leen defal barrière te la ñu yem ñoom ñëpp te xam naa ni li mu def noonu mooy làmb moo gënoon li mu defoon bee passé xam nga Gris Bordeaux tamit xam nga Fass yëpp génn nañu ëmb ko amul lenn loo xamante ne li mu daan def la def rek. Mhm. li ci li ci li ci xaw a sax mooy kati bi nga xamante ni moom moo toog ci banc bi entraîneur am te kati bi mu indi Yékini Balla Gaye moo ko daanoo mu nekkoon revanche entre kati presque ak ak Balla Gaye mais dafa mel ne Balla Gaye moo remporté. non dafa bëri parce que Balla Gaye dafa dugg daan fa Papa Sow door ko mu daanu dégg daan fa Moustapha Gueye daan fa mbay Diouf euh, daan fa Mbaye Diouf daan fa Gris yoon. du du benn du 2-0 ëpp na 2-0 cinq cinq la am cinq victoire la fa am soo xoolee parce que école de lutte euh, euh, ba euh, bi muy bëre foofu Fass Mbaye Diouf mu ngi woon Fass xam nga daan ko fa bi muy bi muy bëreeg Moustapha xam nga Moustapha Gueye Fass la nekk daan fa Gris Bordeaux ñaari yoon bi muy daan Papa Sow Papa Sow Fass la ne woon kon moo moo lay woon ne tey 5-0 la waaw parce que yooyu yëpp seetaan nañ ko seetaan naa combat am ak Papa Sow. nu mu koy dóor mu daanu seetaan naa combat am yëpp waaw combat am yëpp seetaan naa ko waaw. Mm-hmm. mais dafa am si ñeen ñi si amateur yi bon kontaan nañu ñoom d' après parce que nee nañu mbëri ñoom euh, ñaari daanaka jeexal nañ ci làmb dañuy naxante rek par rapport seen poids Balla Gaye bi nga xamante ni dañu xool ni da ko fu mu jëlee coup dañu gis ne fa mel ne moom da doon ralenti làmb ji bëggatul sax si xeex bi ja gars daal gis nañ ni ñu bari nii gars yi dañu mel ne ku doxel quoi. waaw soo xoolee combat ñaari combat Balla yëpp ak Eumeu seen da say jël coup yàq làmbam. man faay bi ma gis ci moom loolu la kese bu nekkee dafa jël coup rek kombaam kombaam yàqu na parce que man bi ñu may njëkk a introsé man dóor mu daanu laa gisoon moom laa indaale sax ci stade bi dama ne tey jii kombaa bi man gisuma ci bëre kaawoo laa ci gis te li ma ci gis tamit am na comprendre nga est-ce que Gris Bordeaux Balla Gaye kaawoo na Gris Bordeaux mais Gris Bordeaux kaawoo na ko ñaari yoon si kaawoo ñaari yoon boobu mooy ni man dama gis affaire ragal si gir Bordeaux parce que bu munoo kaawoo mbër ba pare ba nga féete ko kaw xam nga ngay seetaan nga kaawoo ko ngay sóoraale yaa ngi mooy di gis léegi nag li may interpellé mooy tëggkatu sabaram yooyu damaa seetaan benn vidéo yoo xamante ne man ma ko parce que tamit xam nga yàgg na leen indil ndam Gris Bordeaux yàgg na leen indil ndam ay bàyyi nañ kook yooyu noonu loolu nanguwuma d'accorduma comprendre nga ñun defet bu nekk am nañ ko fii Pikine te teewul ba tey ñu ngi ànd ak suñu mbër Balla Gaye defet bu nekk am na ko teewul waa Géejawaay ñu ngi koy topp ba tey comprendre nga yooyu loolu waa jooju wax noonu tëggkatam boobu noonu man ànduma si comprendre nga parce que da doon ut yàlla xañ ko jox Balla Gaye xam nga nañu dem defarujuwaat xam nga beneen yoon xëy na yàlla mun na ko may ndam daal. waaw jox cër Balla ba mu ëpp. waaw non da ko sóoraale ba mu ëpp. waaw da ko sóoraal ba mu pët soo xoolee combat bi ñu ko soufflé sept minutes comprendre nga gis que signe de Fatick feeñ na fa. si ñoom ñaar ñëpp. signe de Fatick parce que euh, Balla gay Gris moo ko indiwaat ci làmb ji xam na la ko indiwaatee bi mu ko kaawoo ñemewul dem looloo tax ba euh, Balla Gaye xam nga Sénégal yëpp xam nañ ne der la gaynde la ne nag xaaral ma jeexal làmb ji comprendre nga parce que Gris Bordeaux looloo ko arrivé woon contre Eumeu Sène téye na di dóor di dóor di dóor mais bi Eumeu Sène jàppee ngemb bi la làmb bi jeex combat bi tamit topp na Balla Gaye di dóor di dóor bi Balla Gaye jàppee làmb ji jeex na kon loolu moom xam nga lu man xam nga du ma ko jàngal làmb parce que ay techniciens yi ñoo ko yor xam nga nay moytu loolu daal ñu koy moytu loolu. mais mais parce que Balla Gaye bi mu mel ne lu ko xaw takk takk bi dëgërul. mais giri foofu noonu mu sax génn bu baax boo xoolee ni muy jógee di di di daanaka benn la diisaayam foofu. handicap. non non non ñoom ñaar ñëpp seen diisaa yooyu xam nga ñoo attan xam nga ñoom ñoom ñoom ñoo moom seen yaram mais xam nga état yi état yi daal laa àndul quoi parce que dafa des dafa des dafa des physique. mun nañu contact dugg saal musculation mais physique dëgg parce que soo xoolee ñaari po ñaari ponkal yu toll noonu ñu bëree sept minutes xam nga signe xam nga signe de fatigue di feeñ foofu loolu xam nga dafa am lu des bu baax a baax a baax a baax. waaw dafa des bu baax parce que waa affaire mystique bi la ñu gën a farataal contact ak ak ak ak ak physique bi. démb loolu moom feeñ sax parce que soo xoolee comprendre nga def nañu presque seize minutes di sotteekoo ay gàllaaj avant arbitre bi ñu leen di présenté seize minutes ñu ngi taxaw di sotteekoo gàllaaj uh-huh. mais man waaw jox cër ba mu ëpp. waaw waaw ak xaw a ragal Balla Gaye nag teg si mu ngi si. waaw mu jéggal ma nag. waaw mais parce que tey bu ko ñeme woon xëy na làmb ji mënoon na jeex mais ñemewu ko wax dëgg yàlla. Mm. mais Gris ak avenir am ak lamb ji defet bi mu ci am nii donc Gris avenir am lamb du lëndëm tuuti. non non du lëndëm parce que tey ñëpp xam nañ ni si combat am bu taxaw moo la de guerre la waaw bu taxaw la de yàgg na ko laaj comprendre nga. mais la de guerre ama. non non ama <laughs> ama ama moom léegi ñu finaliser combat am ak bombardier tuuti moo ci des. waaw moom bombardier maa ngi siy félicité suma xarit Ibrahima Diop. xam nga xam nga Kajoor production mu ngi ciy dox tamit xam nañu sori nañu trop mais wax dëgg yàlla moom Ama Balde moom comme mu ngi si contrat ak Modou Lo ñu ngi xaar tamit yàlla may Modou tan xam nga di ko ñaanal famille yëpp tamit yàlla boolewaat den ba combat boobu taxawaat bu nekkee combat bi tamit xam nga Modou pareegul. tamit doo fa nekk ci faju ba tey ñu koy ñaanal daal man daal man Pape Sarr maa koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm may ko tan ba yàlla boole waat leen xam nga man daal combat. Gris Bordeaux Lac de mooy kombaa bi. Gris Bordeaux guy gi. combat la Gris Bordeaux Sa Thiès combat la bi. waaw parce que moom wax dëgg yàlla wàcc na deuxième division. <laughs> yàlla bu mu dem amateur kon bu ko bu ko daanate mais li li ñu si ñu daaneel waxtaan bi mooy Balla Gaye bi nga gis démb est ce que xalaat ngeen mën na am dara si Boy Niang parce que suñu juumul moom lañu jàpp ni moom la war a bëriwaat c'est le même projet. non man euh, du ma wax comme Pikinois duma wax tamit comme tey Balla Gaye du suma mbër mais suñuy wax favori Balla gay mooy favori parce que bëri na ak ñoo xamante ne Boy Niang bëriwul ak ñoom ku daan Yékini des arènes. comprendre nga bëreeg Eumeu seen ñaari yoon bëreeg Modou Lo daan ko ñaari yoon kon ñun booy ñaar suñu rakkal loolu ëmb ko taxawu ko mais favori Balla Gaye lañ koy jox parce que tey dañuy waxante dëgg rek mooy favori mais tey mu ngi bëreeg xale bu doy waar xale boo xam ne du caaxaanee làmb du foowee làmb comprendre nga ma siy wax pikin waay yëpp ñu teel a pare jóg booy ñaar moom pare na bu yàgg pare na bu yàgg du caaxaanee te papam sax du ko seetaan ci loolu ñun duñ ko nangu. xam nga xam nga affaire tëdd ak nelaw yooyu moom jeex na na jóg takk daal di yéeg taxaw xam nga wow konku taxaw ak moom. Balla Gaye pour nga daan ko foog nga ñooxu ko foog nga ñeme ko tamit. non booy ñaar ragalul booy ñaar ragalul combat bu neex lay doon. combat boobu moom combat bu neex lay doon. combat booy ñaar Balla Gaye combat bi dina am bëre dina am xeex. parce que ñaar la Balla Gaye di indil cinq personnes yu fa booy ñaar daan ak revanche su Sa Thiès waaw yooyu yëpp. xam naa ne <laughs> su ko yenoo xëy est dina ko attan. fils de Balla soq bi xam nga ñoom. Euh, kii euh, góor xam nga ñoom ñaar ñëpp su may ñaari xarit lañu. mais man fils de la xam nga xëy na moom moo ma siy demal ak yooyu noonu mais góor a suma xarit la. suma rak la góor a xaw ma ko làmb séerance laa ko xamee. xam nga li booy banlieue yi di def la def. xam nga bi ma koy xam xale la muy ñëw séerance kaw séerance. comprendre nga est que lépp loo xamante ne rek xam nga mooy xale yi taxawaalu ah def na ko te ragalul fils de Balla nag man sama fils la sama xarit la dam koy dugal sax estati daf may dugal estati su su may def fii dara wala di fi ñaanal ndimbal ñàkkam day ñëw comprendre nga est que du toog ñaari fante woowu ma maa ngi di ñaanal yàlla defal leen ndam ñoom ñaar que le meilleur gagne mënu ma ci analyser parce samay xarit lañu ñoom ñoom ñoom ñoo ci samay xarit ci mbër yi nga xamante ne tey xam nga dëkku ak ñoom su ma génnee Alioune Seye 2 xam nga fils de Balla a sook ñoom ñooy samay xarit ci mbër yoo xamante ne man dëkku ak ñoom uh-huh. ñoom laa sëkkal jàmm ñoom laay déggantal téléphone affaire yooyu noonu waaw. kontaan nañ waxtaan bi lan ngay daaneel loo xamante ni amaana bëggoon nga ci waxtaan laa jumma la ah, li may daanale daal mooy maa ngi koy wax maa ngi koy wax Eumeu Sène di ko wax booy Niang ñu pare bu baax parce que tamit xam nga ñun après yëpp ñun lañ koy sëb xam nga ñoom Gris Bordeaux Gris Bordeaux lañ daan mais dañuy communiquer si waa Pikine waa Pikine te combat bi xam nga euh, premier janvier la ma lay wane ñun nañu xaar suñu wàll rek comprendre nga est-ce que waaw di di di jaajëfal ñëpp waaw di nuyu seema bu ama maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax moom moom mooy saraxu Ama Baldé maafe maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu Pakola di ko féliciter di nuyu yaayam Kumba Baldé nuyu fi may yeewoo di nuyu diaspora bi yëpp nag maa ngi di nuyu képp ku may seetaan nekk si diaspora bi xam nga di nuyu nag sama tubaab bi curku curku moom mu ngi ba Suède ak bépp doomu Gambien xam nga maa ngi leen nuyu bu baax gis naa tamit seen taxawaay si seex sama doom bi gis naa leen bu baax Gambien yi jàppale nañ ma si bu baax a baax a baax mun naa leen sama ñàddaram fajul xale bi xam nga samay nit parce que tamit dam ko doon def dafa am ñu daan feebar fii ma ma leen di ketal xëy na loolu la ma suñu borom fay ci suma doom ji bi ko loolu amee tamit xam nga samay mbokk ñu ma ñoom la awdu lobaat xam nga xam nga ñoom ñëpp ñoom awdu lobaat ñoom kunna xawa penda xam nga ñoom diyee xam nga sama mbokk samay famille tey balaa kenn di ñëw samay famille ñoo fa njëkk ci hôpital bi xale yëpp booy ma nekkal fii ñoom ñëpp taxaw nañ ma wax dëgg yàlla uh-huh, ma leen si jaajëfal bu baax di nuyu tamit waa uh, saa limite yëpp waaw di rafetlu tamit kàddu gi ma wax ni ak émission bi bu nekkee am na benn lënk-lënk bu si nekk rek nga xam ni man nit kese maa ngi siy jégalu ñëpp di nuyu ñi may seetaan ñëpp wasalaam macha allah xam naa lamb yi bu gën a bu ndax ñu ngi si catal saison bi donc xam nañ lamb yi bu gën a jege ko seet si waan mu defal ñu ay jàngat si lamb yi di ñëw hmm. en tout cas ça a été un plaisir Pape Sarr laa ko mën a waxee ndax euh, tamit moom addina bi yëpp dañu koy bàyyi xel ndax kàddoom macha allah ñëpp koy déglu di ko di ñaanal également euh, suñu euh, doom ji nga xamante ne dafa def soog di ñaan bu baax a baax yàlla daal di fëgg boppam gaaw mu daal di si génn si nu mu gën a gaawee Babacar Toumani ñoom ñoo nekkoon si caméra beeg réalisation bi Ousin nekkoon si présentation bi jaajëf